album bi album bi dama bëggoon a xam naka lay tudd ak ñaata titre moo naa nekk ci biir. waaw album bi nag sama yaay waaw sama yaay. nu mu tudd sama yaay sa yaay nga yaay Fatou Mbaye laa ko tudde d'accord ndax comme que njaboot gi bëriwuñ ban mën ko tuddee doom. génne nañu album bi tuddee ko ko. woy ko ci tamit sargal ko ci. Mm-hmm. woy ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. woy yoon Serigne Fallou moom damaa ñëw rek damaa ñëw rek dem ci moom ba jeex. defal nga laa ko woy lépp di Serigne Fallou. waaw moom laa ko defal. sa wëgg leer waaw ndax nit moom foo foo far rek da nga fay fa mm-hmm. woy nag euh, suñu yaay yaay ju baax joo xam ne daf ñoo bëgg ni nañ ko takkal médaille door muy ajaratu amiloo gay ca njaareem wooy maam ay safar ndar ndar bi mhm. wooy nag nit ku gëm boppam ndax nit balaa baax day gëm boppam mhm. muy ajaratu awa Jóob Ture teg ci sama yaay géwél piir yi mhm. géwél boobu nag woy naa ci tonton Maasum Mbay woy ci ajaratu daane Mbaay ak doomam woy ci Kinde Cuun tubaarkàlla woy ci Gonde Sàmb sama xarit ba nekk Amérique tubaarkàlla ak Ayda Caam ak Aji Mbaay sama mbokk yëpp laa ci woy boobu daal mooy bu wax dëgg daa woy ci communicateur traditionnel yëpp Saala Bigué Ndiaye sama frère. ak Garmeek ñoom ñëpp daa woy naa leen ci doomu géwél laa boobu. waaw ngay dem da ngeen ñu ci may tuuti. waaw bu leen neexee ma woy leen doomu géwél laa bu leen neexee tam ma woy leen Seydina Mohamed bu leen neexee tamit bu leen ci neex rek. kaset bi daal mi ngi noonu day génn le 10 lay génn bu soobee yàlla mooy mhm. alxames tey bi bu delsee mhm. ñu ngi koy defee ca théâtre verdure ba ca Pikine mhm. waaw séance d'écoute bi foofu la ñuy invité ñëpp nag foofu journaliste yëpp woo nañ leen ku bëgg am album bi naka lay def sama doom mi ngi koy jaay ci Bambirene kër yaay Ndey Faatu Njaay ca Pikine marché zinc mooy Ndey Cheikh Ndey Ñang maa ngi koy jaay itam Sorano ci ci ci sama doom bu fa nekk boo xam ne dafa maa bëgg lool lool lool Ndiaye. ku fa ñëw boo ko laajtee Sidi Ndiaye di nga am album bi. ku téléphoné tamit ñu indi la ko sa kër. ban numéro. 600 658. 60 77. 90. d'accord ku woote ci boobu numéro 658 77 90. woote ci numéro boobu. Mhm. ñu indi la cassette ba sa kër. xam nga bijou produire dafa metti metti na moom surtout produire sa bopp. metti na torop. waaw ñu lu ci loolu nag. man sax ci loolu laa bëggoon ñëw parce que yéen dañ leen di gis ngeen nekk soxaanu am talent di woy ay woy yu neex mais pour ngeen génnee album day raar bu ñu gisee seen benn album dinañ toogaat ay at soog ko gisaat lu waral loolu. waaw li ko waral mooy comme que ñun laaw la cat macha allah. nekk nañ ay fonctionnaire ndax liggéey mooy suñu way mooy suñu liggéey ñun. Mm-hmm. ñun dañoo jël way muy suñu liggéey. Mm-hmm. ñu nekk ci ay fonctionnaire yàlla teral na ci ñu nekk nag Sorano la macha allah am lool fuñ fa yàlla teg ñu tegoo fa. Mm-hmm. ba tax na lépp looy génnewaat da nga ko war a déglu. defar ko ba mu baax ba boo ko génnee du am critique. qualité ngeen bëgg a génne. qualité la ñuy génne ndax dara jarul a yàkkamtee. dëgg la man xam nga bi ma commencé ba léegi bi mooy sama ñeenteelu kaset. Mhm. waaye nag sant yàlla ak ay single yu bari ndax boobu ngeen di dégg mooy jabar jabar bi nga xam ne heure bi daaw laa ko génne ñoo présenté si ko fii. Mhm. single la woon. te tamit cassette bi maa ci tegaat yeneen i yoo xamante ne damay mottali day ñëwaat balaa anniversaire bi bu soobee yàlla anniversaire anniversaire bi le janvier la ca Sorano ah, ndax kuy wàllu nag gar seen kër a foowul comme que ñun Sorano la am foofu la ñuy foofu la nekk am fa lu mat 21 ans mm-hmm. amuñu droit di def benn bis bu mag di fa romb. dëgg dañ fay def suñu bis ba ñu xam ne suñu kër gi neex nañu saf nañu. bu ëllëgee nag bu ko yàlla yokkee ñu jàll feneen. waaye fi mu daal ñoo ngi soraanoo suñu kër. incha tonton Gami waaw. daal xam naa maa ngi lay wax ne daal euh, ndaanaan daal nga invité tey. Mhm. muy Ndeye Fatou Ndiaye. Sali Biége ak Gambeen yi bokk tam nag ci askanu mag bi. waaye daal dëgg-dëgg biisu Ndiaye ni ma la ko waxee rek moo ci am solo. Mhm. ku jubóog askan bi yëpp la. Mhm. ndax xam nga yi benn bopp lañu. dëgg la euh, ba pare bëggante soppante waaye nag ay xarit daf ciy am. Mhm. waaye Ndeye Fatou Ndiaye daal dëgg-dëgg ci ñu xaritoog ñëpp ci la bokk. su ñëwee sa xew en tant que géwal soo waaye boo koy may du ko jël te loolu te loolu yóbbu. dëgg bari na ñoo xam ne ñi dañuy ñëw sa xew. en askan wi askan bi nga di leen may dara newu ca sax mais moom soo ko dee jox du ko laal. kon nag mu nekk nit yàlla baax kon ñu ngi lay ndokkeel di la ñaanal jàmm bu baax a baax vraiment nday faatu kaset bi daal yàlla na jur ay kaset yu bëree bëri tubaarkàlla te anniversaire bi nekk tamit nekk bés bu si nag waaye yu muy wayal muy géwal nag waaw euh, muy géwal amiin xam naa balaa muy balaa muy dem sax dinañu may benn acapella bu ndaw comme da nga wax ci anniversaire bu du la bàyyi